bismillahi irrahmani irrahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalaatu wassalaamu ala ashrafi alanbiyaai wa imaami almursalin sayyidina wa nabiyina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam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 waaye nag bu ko déggee ne boo ko santul ci xiwal yam lay xiiwalal du ko yokk déedéet doo ko déggee ci anam wii de sant xiiwalu yàlla ba jàmbi di sant yokkul yàlla dara ñàkk kaa sant ci xiiwal yam lay xiiwalal wàññiwul yàlla dara waaye dafa fekk ne rekk sant ko ci xiiwal yam lay xiiwalal dalay gën a tax doon jaam bàyyi reconnaître xiwal yalla yàlla di xiwalal te mënu koo am ci keneen wala ci feneen kon bu fekkente ne buur yàlla subhaanahu wa taala moo la ko xiwalal kon yow jaam bi amoo dara li nga war a def lu dul sant xiwalu borom boobu subhaanahu wa taala tax na mu ne ñu la in shakartum bu ngeen di sant xiwal yi rek la azidannakum ma daal di yokk xiwal yi ba tax na ñu jànge ci njàngale yonent bi sallallahu alayhi wa ci njàngalem yu mucc ay yi ci njàngalem yu matale yi moo ne moo ñu jàngal xéewal ba yàlla di xéewalal doomu aadama yi rawatina xéewal bañ naan xéewalu nelaw mbokk yi bu ñu demee xool ci alquranul karim dinañ fa fekk buur yàlla subhaanahu wa taala muy wax ak doomu aadama bi di ko tegtal ay melokaan yi nga xamante ne moom buur yàlla subhaanahu wa taala moom dong moo ko yeyoo moo ko man xam ngeen ne waxtu su néew ci ginnaaw ñu ngi jógee ko def lenn ci xéewal yam ñu xéewalal te muy xéewalu nelaw mu nekk xéwal wi nga xamante ne bu duutoon moom yàlla suñu borom tabaraka wa amul kenn ku fi nekk ku ñu war a mën a xéwal lal xéwal bi mel ba tax na moom yàlla di borom bi tabaraka wa taala mu ñu demee xool ci suratul qasas mu ñu fay nettali a xéwalam yamu xéwalal doomu aadama bi rawatina yow julit bi waaye nag bu ñu demee xool dinañ fa gis ne buur yàlla mu ngi wax ak doomu aadama bi en manière général mboolem seen war yàlla di laaj muy wax ak doomu aadama bi mu di la poser question yow mi nga xamante ne yaa fi nekk nga ne doo sant xéewalu yàlla yi yow mi fi nekk di bañ a sant xéewalu yàlla yi nga bañ kaa sant comme na ko yonent bi jàngalee sallallahu alayhi wa xéewal bu ñu jógee ko jëfandikoo waxtu su néew ci ginnaaw te mooy xéewaru nelaw yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jàngal na la fa ne képp ku jógee jëfandikoo xéewal boobu di nelaw dafa am li nga war a mel dafa am li nga war a wax ay baat ya nga war a tudd delloo yàlla njukkal sant ko ci xéewal bi mu la may nga jëfandikoo xéewal boobu mu di la yenkeewal xéewal boobu mu la yenkeewal nga sant ko ci xéewal woowu bu la ko yonent bi jàngalutoon sallallahu alayhi wa man de damaa xamut fuñ koy jàngee ak ku ñu koy jàngal kon yónni ba yàlla yónni yonent mu nekk nabiyu rahma ba tax na mu nekk wa ma arsalnaaka illa rahmatan lil alamin amul benn détail ba jullit bi di faggu ci xeetu yiw ci ay kàddu ya muy wax wala ci ay melokaan ya muy meloo ngir mu fàggu fa ay yiw xamal na ko julit bi waaye xamal na ko xeetam sallallahu alayhi wa moo tax yow ujaaj bi kero bi nga ajee màkk nga di ko nuyune ne ko assalaamu alayka ya rasulallah assalaatu wassalaamu alayka ya nabiyallah qad balagta risalata wa addalta al wa nasaxta al wa jahadta fi llahi حق جهاده حتى أتاك اليقين صلى الله عليه وسلم moo ne téere boobu yàlla buur bi subhaanahu wa taala ci yonent bi sallallahu alayhi bu ñu demee xool ca suratul qasas dinañ fa fekk buur yàlla muy wax ak doomu aadama bi di ko laaj ay question yo nga xamante ne keroog bu ko laajee keroog bu mu laajee doomu aadama bi ci alquranul karim bi suñu jonn yàlla ji di amul kenn amul savant bu ko tontu amul philosophe bu ko tontu amul buxaaba bu ko tontu amul boroom xam-xam ba tontu yàlla question bi yàlla posé nii mbokk yi question laajte ba yàlla laaj doomu aadama bi nañ leen xuus géejo alquran ci réew mi FM 97.5 ci waxtaanu fajar bay jaar ci béréb bi ñu xool suuratul qasas ban tefes lañu ñuy dem teeri jee su ko defee lu ñu napp ci géeju alquran ñu andil leen ko ci tefes bi ñu daal di ko waxtaan mbokk yi kon xuus nañu ci géeju alquran ci saar ba ñu naan sootul qasas buur yàlla di laaj nee na qul araaytum in jacala allahu alaykum layla sarmadan ila yawmi alqiyaamati man ilahun gayru llahi yaatiikum bi diyaain afala tasmaun boobu mooy njëlbeenu question bu yàlla pose ci téere bi doomu aadama yi war koo tontu waaye boobu léegi kenn mënu koo tontu deuxième question bi ñaareeli laajte bi booru yàlla ne qul araaytum in jaala allahu aleykum nahaara sarmadan ila yowmi alqiyaamati man ilahun gayru llah yaatiikum billeyl taskunuuna fiih afala tubsiruun kon buur yàlla suñu boroom subhaanahu wa taala mbokk yi laajte na fi ñaari question boo xamante ne amul kenn ku tontu amul kenn ku ko tontu ñun nit ya ñuy puugaréew boroom xam-xam yeeg savant yeeg philosophie yeeg buxaaba yeeg marabu ya ñuy tiitaroo amul kenn ko mën a tontu ya buur yàlla laajte fii kon moom mi laajte dina tontu boppam dina tontu lii mu laaj ni su ko defee ñu xuusandi géem a xool ana lan la buur yàlla laaj booba ba léegi amul kenn ku ko mën a tontu kenn da ko mën a tontu sax subhaanahu wa taala moo laajte moo tontu kon nañ leen xuusandi si géeju alquran xool la buur yàlla laaj ak namu tontu mbokk yi yenn jàmm yàlla nekk ci yéen ak seeni njaboot buur yàlla tabaraka wa dafa laaj ne xool yow sama ndaw yow sama yonentu bi nel yiifaru màkka yi ak képp ku mel ni ñoom ara aytum moo ne ba xam gisu leen in ja'ala allahu aleykum bu yàlla defoon ci yéen layla guddi sarmadan mu doon lu éternel ila yawm al qiyaama ba keroog bés pénc guddi rek ngeen di dund yàlla laajte mu ne man ilaahun gayrullahi ana kan kudut yàlla mooy yaatiikum bi diyaa in ke leen di andil lumière ma bi maana ñu déggee ci maana aaya bi mooy buur yàlla daf ne ba gis ngeen yéen yéefar yii di jaamu xirim yen mi weddi yenentu bi ak alquraan yenn mi nekk intellectuel mi nga xamante ne doo leen déglu alquran du ngeen dégg la alquran di wax ñay wax la alquran di wax ña leen koy jottali dangeen ngeen di jàppee nit ñooñu ay nit ñu tardé yenn la aaya bi di waxal yàlla ne ara aytum moo ne ba xam gis ngeen ba xam gisuloo ba xam gisuleen in ja'ala bu yàlla defoon aleykum ci yéen leyla guddi sarmadan mu doon lu éternel bëccëg amul guddi rekk ngeen di dund ilaa yawmil qiyaama ba keroog bés pénc mbokk yi bur yàlla laajte ne man ilahun gayrullah ana keneen ana weneen yàlla budul yàlla la ngeen di jàppee yàlla ka ngeen yàlla la la ngeen jàpp yàlla ndax léeg-léeg doomu aadama seytaane da koy réeral gëlëmal ko bem ko installeel beneen yàlla bu wute ko bind kon yàlla boobu la buur yàlla di wax ne man ilaahun ana beneen yàlla boo xamante ne xayrullah kudut yàlla mileen leen bind yaatiikum mu di leen andil di leen dikkee bi diyaa in leeraay ana beneen yàlla ngeen yaakaar kudut yàlla mi bind bind guddi nara bind bëccëg nara leen jox éclairage ana beneen yàlla mi ngeen yaakaar seeni yet yi ngeen yett nii di ko jaamu du ñooñu de waaw malaaka yi ngeen yaakaar ne ñooñu ñooy yàlla du ñooñu tamit de leneen lu waaye yaakaar ne loolooy yàlla du kookoo fi andi <laughs> limeer bu koy niital euh, àddina si de déedéet yàlla ne dama ne bu ma defoon guddi mu doon lu éternel ilaa yawmil qiyaama ba keroog may tukkil àddina ana ban yàlla ngeen yaakaar ne moo leen di andil diyaa bëccëg afala tasmaun yàlla ne ba xam du ngeen ubbi seen xel ngeen dégg la ak alquran di wax moo ne du ngeen ubbi seeni nopp du ngeen ubbi seeni buntu xel ngeen géem a dégg la sama ndaw bi di jottali est-ce que du ngeen nangoo déglu la sama ndaw bi di jottali afala tasmaun ba xam du ngeen nangoo dégg buur yàlla daal di posé beneen question ne xool ne leen ba léegi ba xam gis ngeen wala ba xam gisu leen ba xam yéegu leen in jaala aleykum nahaara sarmadan bu leen defaloon bëccëg mu doon lu ilaa yawmil qiyaama ba keroog bés yàlla ne bi léegi man ilaahun ana beneen yàlla koo xamante ne xayrullah kudul ti yàlla mi bind mu nar fii andi yatiikum bi leylin di taskunu fii ana beneen yàlla ngeen yaakaar ne moo leen di andi guddi bi nga xamante ne fa ngeen di war a mën a dalloo ndekete guddi jëmm doomu aadama da siy dallu da siy noppale ko ana beneen yàlla bi ngeen yaakaar ne kooku moo fi war a andi guddi non seulement climat bi day doon climat bu lëndëm climat bu fiix climat bu guus waaye taskunuuna fiihi ngir ngeen dëkkee di dallu ci climat boobu ana keneen ngeen yaakaar ne mooy war a andi climat bi ku dul yàlla bul ne afala tubsirun moo ne yéen du xippi seen bët xanaa du ngeen xool xanaa du ngeen gis xanaa gisu leen waaw kañ afala tubsirun moo ne xanaa gisu leen xanaa du ngeen xool xanaa du ngeen xëppi seeni xool kaawtee fu yàlla ne muy wuutu wante ak guddi wala guddik bëccëg nu ñuy wuutu wante xanaa du ngeen xëppi seen bët yi xool guddi bi fi nekkoon yow mi nekk di dund bëccëg guddi bi la muuroon fu mu dem ku ko fi jëlee fu mu ko yóbbu bitig bi nga nekk ni fu mu jógee ku ko fi andi nu mu fi ñëwee ah naa doo xalaat lii ah yàlla ne nag comme du ngeen mus am tontu bi réponse bi du mus a jib réponse bi du mus a jàppandi ba keroog bés penc du ngeen mun a tontu question bi buur yàlla daal di tontu question bi mu ne wamin wamin rahmatihi bokk na ci yërmandem yamu yërëm jaami wa min rahmatihi bokk na ci yërmandeem ya mu yërëm doomu aadama yi wa min rahmatihi bokk na ci yërmandeem ba mu yërëm mbindaafoon yi wa min rahmatihi bokk na ci yërmandeem ba mu muur mboolem mbindaafoon yi jaala lakum leyla mu defal leen guddi wa nahaara ak bëccëg li taskunu fiihi ngir ngeen nekk di dallu ci guddi woowu bëccëg bi mu defal leen ko wali tabtaxu min fadlihi ngir ngeen dem sàkku ngenil yam leen tasal ci kaw suuf si waaye nag bu ko defee wala allakum ngir yéen ngeen nekk ñi nga xamante ne dañuy dëkke di tashkuruun di sant xéewalu yàlla yi kon buur yàlla ne bokk na ci yërmandem mu defal leen guddi ak bëccëg guddi bi ngir ngeen di si dalloo bëccëg bi ngir ngeen di si demee faagu wërsëg yam leen tasal si kaw suuf si ku xëy na liggéey ku xëy na dem këri këri moo am lu muy dundee moo gën di tàllal loxo wala di ñaan nit ñi wala di war nit ñi wala di leen wuruj walla di leen triyande ci seeni alal kon yàlla daf defal benn douze heures de temps fukki waxtak ñaar ci bëccëg mu ne la demal nga géem a kër-këri boo xëyee huit walla wala walla heures donte xëy nga six heures et demi ndax léeg-léeg nga gis ay liggéeyukaay yi nga xamante ne ah ñoom daal six di du matin dañuy tàmbali ñu wàcc quatorze waaw ah, yow boo naree xëy six heures du matin ngay kër kër ba dix huit wala dix neuf heures nga wàcc loolu yëpp bicik la biir bëccëg nga nekk di kër-këri ah, guddi bi yàlla nee na la la nga doon kër-këri ci bëccëg bi sa yaram tas na sa yaram sonn na bët bi xoole na yi loxo bi yëkkati na tànk bi dox na ilaa axiri yi demal nga dem dallu li taskunu fiihi ngir ngeen dallu ci kañ kilima bu ngi naan al layl guddi wan nahaar bëccëg bi ngir ngeen def lan wali tabtaxu min fadlihi ngeen dem sàkku ngéneel baleen yàlla tasal ci kaw suuf si kon aaya bu ñu ubbee suñu waxtaan bi la in shakartum la azidannakum bu ngeen santi xéewal ma dolli ko la aaya boobu la nuroo nii aaya boobu doomu ndeyam moo nekk ci njeexantalu aaya bi yàlla ne bu ngeen defee lii ngeen dallu ci guddi bëccëg bi ngeen dem kër te mu bokk ci yërmande bi ma muur mu doon malaanu yërmande bi ma muur yéen sama mbindaafoo ni rawatina yéen sama jaami bu ngeen respecte horaire ndigli ndigle yi yàlla ne wala allakum amaana ngeen bokk ci tashkuruun cantaakoon yi nga xamante ne dañ may sant si sama xiiwal yama leen di defal yal nañu yàlla boole ci cantaakoon ni jaalana allahu wa iyaakum min ash-shakirin yal nañu yàlla boole ci ña koy sant saa su ne amin ya rabbal alamin mbokk yi xam ngeen ne ba léegi ñu ngi ànd ak yéen ci Rewmi FM 97.5 ci waxtaanu fajar bay jaar ci daara ji su ko defee ñu xuusandi waxtaan ak mbokk yi lenn ci la nga xamante ne mooy ci doxalinu campagne ba ñu nekk nii ñu ñaan yàlla suñu boroom ñu ngi ci njeexintal ba amaana lu ci des bareetul waaw lu ci des daanaka bareetul waaye ñu bàyyi xel rekk jàmm bi nga xamante ne moom lañ jiitu réew mi keroog xafisahullah waraahu yan na ko buur yàlla sàmm wottu ko arko ko mook mboolem ñi mu àndal ci liggéey dañ ne woon kilifa bu àddoo amul dara luñ ciy teg lu dul sami'na wa ataana dégg ak topp dong lañ ci war a teg su ko defee ñu bokk déglu la suñu yonentu bi sallallahu alayhi wa sallam joxoñ ne jàmm daal mooy li nga xamante ne mooy la jiitu lépp jàmm moo féete lépp ci kaw amul dara lu féete jàmm ci kaw su ko defee ñu géem a xool jàmm jooju naka la ko suñu yonent bi décortiqué sallallahu alayhi wa ñu ñaan yàlla suñu borom buru yàlla mi ñu may ñu dugg ci ndaje bi ci bismillahi rahman rahim yàllaa ngi ni amaana si kanam tuuti dem sob na borom bi dinañ ci génn ci alhamdulillahi rabbil alamin lépp luñ si ñaan yàlla yal nañu ko bur yàlla nangul lépp luñ si tiit yal nañu ko buur yàlla fanqal lépp lu ñu si mébét tamit yal nañu ko yàlla defal comme niñ ko bëggee yal nañu ko yàlla defal lu kawe suñu njort amin ya rabbal alamin su ko defee kenn ku nekk fa nga féete fa nga defee ne foofu nga féete keroog bu ñu doon joxe la nga xamante ne mooy fi nga war a joxe sa kart fa nga war a vote demal nga defee ko nii boo ci noppee nga daldi respecté tiral yàlla njiit yi tiralal nga daal di ko doxalee nii su ko defee mu doon loo xamante ne kenn ku nekk dangay ngay bàyyi xel la nga xamante ne mooy luy sa warugal si pénc bi nga doxalee ko noonu comme ni ko yonent bi jàngalee sallallahu alayhi wa mbokk yi yenn jàmm yàlla nekk ci yéen ak seeni njaboot xam ngeen ne buur yàlla suñu borom subhaanahu wa bokk na ci turam yu sell yi ak turam yu kawe yi assalaam assalaam buñ ko waxee ñu ne mooy jàmm assalaam buñ koy waxee ñu ne mooy jàmm te mooy mucc waaw mooy jàmm muy mucc kon buñ ne assalaam ñu ne jàmm buñ ne jàmm nag ñu ne mucc ba tax na ñu bëgg a fàttalanteeg mbokk yi lenn ci li nga xamante ne moom la yenentu bi sallallahu alayhi wa sallam décortiquer ne loolu mooy jàmm ci boppam waaye loolu mooy mucc te loolu mooy li nga xamante ne képp ku nekk di ko jëfe di ko wax di ko melo di nga mucc waaye di nga musal nit ñi sallallahu alayhi wa sallam nee nañu ci xadisu sahaabi bi di abi hurayrata radiallahu anhu mu nañu qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam assalaam ismun min asmaillah nee na jàmm de dafa bokk ci turu yàlla dafa bokk ci turu yàlla te mooy assalaam waaw nee na yàlla nag moo ko jox comme cadeau waaw kon na ngeen ko jël ngeen di ko wesaare seen diggante waaw ah, na ngeen jël jàmm jooju di ko wesaare seen diggante su ko defee mu doon li nga xamante ne di ngeen bëggante di ngeen soppante waaye di ngeen doon ñi nga xamante ne di ngeen doon ay nit ñu bàyyi xel kenn ku nekk la nga nekkee kon dinañ gis ne dinañu gis ba léegi ci njàngale yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mun nañu jàmm dafa bokk ci turu yàlla yi waaw nee na yàllaa leen ko jox na ngeen ko jël waaw bu ngeen ko jëlee ba noppi na ngeen ko wesaare seen diggante na kenn ku nekk jàmmal moromam waaw na kenn ku nekk jàmmal moroomam ci li nga xamante ne dina ko jàmmal ci lépp mu doon jàmm joo xamante ne danga koy wax waaye danga koy jëfe waaye da koy melo waaw doon jàmm joo xamante ne dañ ne danga koy wax waaye da koy jëfe waaye da koy melo sa loxo nay jëf jàmm sa bindkaay bi ngay bind na bind jàmm sa lépp daal na méngoog jàmm loolu moom boo ko defee di nga doon koo xamante ne di nga jàmmal nit ñi te di nga jàmmal sa bopp ba tax na xadisu abi hurayrata ba léegi radiallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam qaal laa tadxuluuna aljannata xatta tu'minu wala tu'minu xatta tahaabu awala adullukum ala cheyin ida faaltumuuhu tahaababtum ufshu salaama baynakum rawahu muslim sallallahu alayhi wa sallam nee na mu ne di ñëw ma tegtal leen loo xamante ne bu ngeen ko defee rek dingeen soppante te bu ngeen soppantee di ngeen yéene wante jàmm te di ngeen tax a dugg arjanna laata loolu dane du ngeen dugg arjanna mukk ba te da ngeen doon ñu gëm yàlla waaye seen gëm yàlla du mën a matt mukk lu doot dangeen soppante moo ne di ngeen ñëw ma tegtal leen la nga xamante ne bu ngeen ko jëfee nekkee ko rek di ngeen soppante mel ni ñëpp a ko ne ah kañ bëgg nañ ko de yow mi yàlla ni loolooy lan yonent bi nee na na ngeen wesaare jàmm seen diggante na ngeen jàmmalante na ngeen jàmmalante képp ku jàmmal moromam da nga koy sopp boo ko soppee da nga yërëm boo ko yërëmee da nga koy bëgg te boo ko bëggee doo bëgg dara lu koy lor lii la yonent bi jàngale sallallahu alayhi wa sallam ba léegi ci xadiisu abdullahi bun mas'ud radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam qaal assalaamu ismun min asmaa'illah wadaahu llahu fi l ard fafshuuhu baynakum xadiisu saxiix axrajahu albani fi saxiixi jaamia mbokk yi yenn jaami yàlla nekk ci yenn ak seeni njaboot xadiis bi di xadiisu abdullahi bun mas'ud radiallahu anhu nee na naka yenentu bi sallallahu alayhi wa sallam moo ñu ne assalaamu jàmm assalaamu mucc assalaamu xéwal ismun da di turu yi nga xamante ne min asmaillahi daa bokk ci turu yàlla yi wadaahu llahu fi l ard yàllaa leen ko wàccee ci kaw suuf si comme kado kon faafshuuhu nangeen ko wesaare fa ufshuuhu na ngeen ko tasaare baynakum seen diggante na ngeen tasaare jàmm jooju xéewal jooju mucc jooju na ngeen ko tasaare seen diggante na nangoo musal nit ñi say làmmiñ ab chroniqueur da def chroniqueur ba nga doon ci xam-xam ak ci élégance nga bañ koo teg ci wax di sànni ci ngelaw walla ci wax woo xamante ni maa anzalallahu bihi min sultaan yàlla wàccewu si benn lay amuloo si benn proof loolu kenn di ko doxalee kenn di ko liggéey nga di si fàggu la ngay dugal say gémmiñu njaboot loolu gor war na jombale boppam di xas gor nga ni chroniqueur nga di wax loo xamante ne amuloo si benn xam-xam nga ni chroniqueur nga te or ko alquran moo la njëkk a tere bul taxaw ci lépp loo xamante ni amoo ci xam-xam ndax appareil ya ngay waxee appareil yi ngay dégloo appareil ya nekk ci yow xamal ne a nga xam ko nga ñàkk kaa xam xamal ne dañ koy laaj dañ kaa gàlla responsabilité bi nga xamante ne dañ koy laaj bi mu doon dund ak jëmm ji naka la ko jëmm ji doon exploité suñu appareil yi yàlla mooñaale nopp yeeg bët yeeg xel yeeg xol beeg gémmiñ beeg làmmiñ bi da defee ne dafay nekk rek ngir ñu du si taaroo ku ko xalaatee noonu juum nga de du de te looloo tax yàlla bindal ñu ko de la tax yàlla bindal ñu ko mooy ñu di si jëfandikoo kawteefu yàlla ñu di si waxtuuru yàlla ñu di si xalaate yàlla lépp lu ñu yàlla digal ñu def si suñu kéemtalaay kattan lépp lu ñu tere nag ñu sore ko suñu kéemtalaay kattan lépp lu ñu yonent bi diggal ñu jëfandikoo appareil yooyu ci loolee lépp lu ñu yonent bi tere ñu jëfandikoo appareil yooyu ci tere ngir sore tere yooyu noonu la ñuy utiliser appareil waaye jël sa ga gémmiñ jër sa làmmiñ toog ci plateau yi ci rajo yi nga ne dangay def def kër ngay wax loo xamut ah di wax loo xamante ne eh, ku ko dégg dar sa gémmiñ nga ne as kër nga ñu di la fay xaalis xaalis woo nga di ko dugal see njaboot hmm, liggéey bi yomb na de liggéey bi yomb na de mais est ni ngay liggéeyee noonu la est-ce que loolu ngay wax noonu la ñu naan liberté d'expression di di di di wax loo xalaat di wax loo xalaat waxal li nga xam waaw waxal li nga xam su ko defee bu la nit ñi déggee noonu la buñ la dégguwul buñ la dégluwul tamit yow waxal lu méngoog li am tôt ou tard danañ wax ne diw sanga mos na ko fi wax waaye bëgg a vi ngay wax njaaxum bëgg a vi ngay wax ay wax yu waxuwul jaru ko de jaru ko de al yawma naxtimu ala afwahihim la alquran wax bés pénc dañuy kaste gémmiñ waaw kaste gémmiñ dañ koy kole gémmiñ dootu fi nekk tànk ay wax wa tukallimunaa aydiyahum wa tashhadu arjuluhum loxo yi di wax tànk yi di seede bi maa kaanu yaksibuun lu ñu nekkee woon di fàggu loolu képp ku koy xalaat da xool sa taxawaay kon yàlla buur bi tabaaraka wa dafa bokk ci turam yu sellay assalaam yonentu bi nee na yàlla ñu ko jox wàccal ñu ko kado ci kaw suuf si kon nañ leen ko wesaare suñu diggante mbokk yi ñuy wax allahumma anta salaam wa minka salaam wa ilayka yaudu salaam fa xayinna bisalaam wa duxina al jannata daaraka daar salaam amin ya rabbal alamin waxtaan bi jeexut dañoo yëg si fu ñu war a yëkkati jotaay bi ñee tas xibaar ñu ngi nii taxaw ñu war leen dibbal béréb bi saa ilina mawla jalla wa ala an yajalana min allazina yastamiuna alqawla fa yattabiuna ahsana allahumma ya rabbi aminna fi awtaanina wa aslih aimatana wa wulaata umurina allahuma ya rabbi ixfad bilaadana min alfitan ma dahara minha wa ma batan allahuma aati nufuusana taqwaha wa zakkiha wa anta xayru man zakkaha anta waliyuha wa mawlaha fa nicma almawla wa nicma annasir